oui d'un côté mais lii mu wax dafa am solo tellement que peut-être je l'aurais pas si bien dit euh, monsieur Cissé ni mu ko waxee xam naa bu ma ko doon wax du ma ko mun a wax wala pour du ma ko sax sañ a wax. mais mais dañuy dund dañu koy dund au quotidien nous sommes yow lu mu wax munoo ko non j'ai pas dit. non je suis mal placée pour le dire comme il a si bien dit. parce dafay mel dafa am ñooy waxal. parce que nous le au quotidien. Ah, que ça soit les femmes qui sont dans les organisations jours les femmes les, les son sont réduites à leur situation de femme te loolu daf dañ koy màggaale en vérité donc l'éducation là doit commencer dès le bas âge ñu yar xale yi góor ñi comme jigéen ñi di leen wan ne seen jigéen ñi seen moroomu nawle lañu. mais gisoo yéen a bokk penc mi changé na. yéen a mi ngi mi ngi changé tuuti. mais am na lu des c'est-à-dire loolu dès le bas lañ ko war a cultiver yar ci xale yi. tàggat leen parce que am na famille yooyu dem ni ñuy éduquer ku góor ki noonu la ñu éduquer ku jigéen ki wan ko ne ko si penc mi ngeen bokk lu kii mën war nga ko mën xale yi màggaale ak loolu noonu maintenant bu ñu màggaalee ak loolu dinañ jàppee jigéen seen nawle mais du ñu jàppee jigéen ku ñu war a yilif ku ñu war a euh, maanaam euh, néewal doole wala koo xam ne dañ koy xool lekk ak malgré ses diplômes hmm. malgré son engagement malgré sa détermination malgré son background intellectuel ñu koy xool comme jigéen parce que des fois sax nga gis conflit dans les partis ànd dafa muy am ay réero mais dañ naan noom kii bu ko topp jigéen la euh, c'est quoi bu ko topp jigéen la euh. c'est quoi bu ko topp c'est des stéréotypes yoo xam ne ni il faut que ñu ñu dindi ko mmh. déjà ci mentalité du see ci organisation politique la am mmh. c'est dans la vie de tous les jours te ci famille la jógee suñu quotidien la la jigéen ñi chaque jour boo nag boo xëyee sa bureau wala nga xëy dans dans les organisations balaa ngay wàcc sa kër dina nit dina la defal remarque wala mu wan ne la yow ko jigéen nga yow t'es capable alors que y des femmes yi nga xamante ni ñoo gën a capable les léegi laa lay wax léegi laa ci tali bi ah dans la vie de tous les ah. jours oh kii jigéen la non xamul naa ne jigéen la mënul dawal mais mais loolu fan lañu ko bind parce que nga am sa permis mu am sa permis vous avez passé le même permis c'est des femmes te maintenant ça a tendance à évoluer ah. effectivement femmes yi am nañ ci part de responsabilité parce la plupart alors góor du xeex mukk ak jigéen de manière frontale. Mhm. mais parfois malheureusement. pour nous femmes on n'est pas assez solidaires pour di bañ loolu mhm. sa à nit du xeex xeexu jàmbur mhm. man je me dis que ñun nañ am fulla ak mat gu toll ne lépp lu ñuy xeex ñu xeex ko parce que ce sont nos convictions fortes joxe ci ay argument mais ñu ñuy utiliser contre jigéen wala ñuy manquer de solidarité bu ñu néewal doole jigéen xamal ne bu ñu paree si kooku si yow lañ jëm ah. bañ aussi bañ aussi di am suñu ay mobilisation mobiliser koñ bi yëpp am plus de 2000 femmes benn Pape Malick jóge fële indi as takku xaalis jox ñu. Mm. ñu jël suñu mobilisation ànd ak moom loolu aussi foofu ñu bañ ko. il faut que ñuy dem jusqu'au bout de nos parce que euh, tout à l'heure il disait par rapport ak candidature les les candidatures que ça soit la présidentielle ou dans d'autres élections il y a un important naan bala nga ni naam nekk fa mm-hmm. l'autonomisation des femmes pour man foofu la solution bi di commencer fexe ba jigéen ñi mënal seen bopp parce que li ñu naan ku yoo sa sankal ëmb sa kersa c'est tellement vrai qu'on le vit au quotidien tey ji bu dee amoo moyen de mobilisation mais si sa càmmañ bu góor ngay dem mu jox la da ku la abal bët fu la neex ngay xool c'est ça maintenant bu fekkee ñun fexe nañu ba am suñu moyen doo ko dugg ci politique wala bu ñu duggee ci politique ñu fexe di sàkku ay moyens di liggéey préserver suñu dignité je pense que yu bëri yoo xamante ni war nañ ci war nañu ci xaar dinañu fa fekk ñu mm-hmm. pare ko euh, euh, ci côté finance pare ko ci côté mentalité pare ko aussi ci côté euh, background intellectuel je pense que bu ñu defee mm-hmm. loolu dinañ gis ay leaders féminin yoo xamante ni selon des exemples j'ai question bon wax nga un